waaw salaamaaleykum bisimilah dañuy sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaanal suma papa bi jiitu yàlla yërëm ko xare ko aljana moo ñi fa fekk ñëpp comme nu ko père Bekay waxee di ñaanal aussi suñu père Balla Gaye xam ne làmb ñàkk te làmb yëpp ko bokkoon di ko ñaanal moom it fu mu jëm gën a ko fi mu jugee suñu waajur des fi yàlla may leen gudd fan ak wér bàyyi leen suñu kanam ba suñu yéene ci ñoom yàlla mottali ko waaye di nuyu d' abord journaliste yi fi teew yëpp parce que benn Bakay wax na ko te loolu la ñëpp remarqué wax dëgg yàlla caméra yi ma fi gis yëpp de est ce que mos naa dugg ci plateau gis ko macha allah leen wax namoon naa leen lool. waaw buur dama defoon yàlla nit ñi moom jarul yàkkam parce que ñu naan seetu asamaan jarul ko bëttee fas yéene am yeneen jotaay yi nga xam ne man ak moom lay doon te bu boobaa la baata tontu di gën a neex waaye yóbbu dëggal ko bu taxaw fële wax ma koy tontu ah bariwul njëriñ pour man man dama nekk ci sama yoon comme lu père Bekaay wax yàlla du ñu dimbali ba suñu déwi tey fukki personne yoo taal micro biir yi boo leen moto ñu koy sant yàlla bu baax a baax ama kooku waxu mbër la wax waaye xam na ni moom man duma ñeexu ñebe kenn wax nag yow waaye nag waaye wax yomb na waaye dañ yàlla may dana fekk incha allah loolu moo mën a yàgg soobee yàlla. kenn bëggul mu jéem loo mu sa loxo tey am na fu ñu fekkoon làmb ji mu am fu mu yegg si tey li may wax chaque fois nag ci bari ci bari nag noonu làmb koy wax waaye làmb tey violence bu bari ñuy wax ci làmb ba lu ñuy wax lu bari wàññeeku ci woon lu ci mbëri parce que li may wax chaque fois gis nga ñuy ñëw ci ay làmb di ñëw di indi ay ñaawteef. ñooñu ñooy dem ci màggal yi ñooy dem ci gàmmu yi ñooy dem ci xew yu mag yëpp ñooñu ay yàqkat la ñi nga xam ne yàq moo leen tax a jóg chaque waaye man état bi lay lancé waat rek appel deen wax li may wax fois lamb suñu sport national li nga xam ne ñun ko moom waaw waaw ñun ci CNG bu moo yaakaar bi ministre am ci ñoom ba teg leen fi parce que am na li nga xam ne yaakaar naa ni ñoom ñoo ci ko gën a xam amaana ba ñuy nekk ci lamb ñu nekk ci woon te ñoom yaakaar moo tax ñu teg leen fii te gëm nañ ne incha allah dinañ yokk mbir mi danañ ne ko yokk da wàññi te nag ñëw xam am fu ñu fekk làmb tax na ngi yaakaar ci a baax fi nga xam ne weesu na sax njort nañ ko xam nga dana defaraat ñëpp gis ci seen bopp képp kuy nitu làmb daal gis ci boppam. du sës parce que dafa am lu nga xam ne man lu ma yàggoon bëgg la même ba may bëreeg. kii nu mu tuddatee bombardier ba mu daan dama doon wax chaque fois su ma yàlla dimbalee ba ma tër roi des arènes damay wàcc ci suuf bëri xale yi parce que làmb ci yemul ci benn mbër ñaar ñetti mbër ñuy bëri suñu biir chaque fois te ñooñu mu lim tey daanaka ku nekk bëri naa seen deux fois loolu làmb rek dañ war ubbi teel bëri moo tax ñu def ñu mag ci làmb mais ñun ñëpp ay borom rek mën ak Ama Baldé ñëpp xamatoo ko rek xam ne làmb na la ñu ko bàyyi ma ko bu ma ko magee ko ma fi lu nga ah, bëri bëri indi gauche ba di droite wala yooyu noonu am na li nga xam ne du du ñu gan ci làmb ah. am xam du ñu gan ci làmb waaw bëri nañ ci ku ne ñam nañ ci ku nekk kon ay ama ba lañ yooyu yooyu góob ma ne daal ay béykat yu bëri mu ngi mu ñëw di ko tëgg xam nga loolu yàgg na lool waaye nag doon na ko lu yàgg mu jaral ko lu nekk incha allah loolu mu doon def ba bis bisoon fexe da incha allah loolu mën a def na ko defal loolu solo yàlla. salaam bu ko defee na bu ko defee ah da ko def rek dama loolu rek la ñuy ñaan yàlla loolu rek la ah nee nañ day membre di de. day membre ñëw. ah waaye fas muy membre de laaw sëriñ bi rek koy laal. kuy ñi ñiy bay yor wala sarañ yi war nañu moo ko day taxaw. merci. Babacar. Lepo. waaw defe naa boole bi weesu nañu ay jot xaalis ak jotu xaalis lamb bu taxaw moo tax ñu teew fii kon tey ay jot xaalis a jotu xaalis defe naa bariwul ci importance lamb ji taxaw na. annonce bi tey mooy sama yëgle ci ñëpp comme boobu léegi ñu ngi wax taxaw naa taxawul ak lii am nag lii am. waaye sorte bi tey loolu moo waral point de presse bu ñëw leeral askan bi ñëpp ñëw am du leen wax làmb taxaw na taxaw na nag jeexal na ko xam yi nga xam li ci des maanaam dox ko xam nga te tey ku organiser bisam soxla nga promotion bu doy utee sponsor sponsor yooyu noonu nga leen promotion ba gis seen mm-hmm. loolu waxin la waxin bi mooy staff bi gis nañ ci état bu leen neex mu tax waxin la rek ñu pare nañ waaye du caageen ni fii mu soob yow la parce que promoteur bi dëgg combat kay moom it soxla na ay sponsor def promotion ci combat mu mm-hmm. loolu loolu gis dañ ko baax parce gis na organisation bi ñuy wax mm-hmm. lii da ci war a gën a feeñ parce que gis nga ay lu mel ne FIFA mm-hmm. di tëgg wii clos NBA yi yeneen kii yu bari ñoo ngi tëgg da soxla soxlawuñu public. ku nekk toog sa kër seetaan ko. xam nga loolu yëpp dafay laaj organisation. moo tax comme li may wax chaque fois rek état bi faaw gën ci jàpp. Mhm. faaw gën ci jàpp ba développé affaire yi nga xam ne mhm. tey. ay yii duñu tax duñu tee bëree. waay xam nga affaire bi dafa laal ñëpp dafa laal ñëpp. waay wax la moom. mais tey buñ amoon xam nga yenn organisation yi mën nañ di ko def. tey ba fii ku sa kër. ku nekk toog sa kër xam nga droit dimanche rek mën nga ci am li nga xam ne. Mhm. mooy loolu. kon Modou pare na pour huis clos mu bëre combat ah oui parce que xam nga tamit di entraîner te bëre woo dafa xaw a soob kenn du ko soobee ah. Mm-hmm. foog naa ne Covid moom ñëpp ñëpp ñëpp ko yëg. mais di entraîner te xam te am xamoo foo jëm exact tamit xam nga neexul entraînement balaa moo neex ñu planifié ko. Mm-hmm. am na tey am na benn temps de mois sa kanam bi nga pare jëm foofu noonu. Mm-hmm. entraînement boo planifié ko sometime day metti waxtaan nañu ci sunu biir dem nañu. parce que moom man yow ma loolu. te tubaab la may wax sax. Mm-hmm. ah. da di rek te am na fooy toll ci làmb. koy bëri la maanaam maye sensé làmb te duy ko am. te boo demee ba yegg ñu cogoog ndaw la faaw nga gëstu ginnaaw loolu la mais du benn bés. non. ñu dem ba si biir nga ñëw dañoo bëgg a xam da ngaa teew dëgër wala lan laa. fàttaliku moom fu ma nee. non am tax nga jël combat bi ndax fi nga toll war a teg indi roi des arènes teg ci nga raw ko fuuf duñ nga raw ko fuuf jël lan foo ko teg xaalis la wala da ngaa am fi ko moo yàq te ni ko roi des leere woon ba àjjanaam leere woon noonu mu dee ni ko àjjana ni ko ma wax yàlla tey yàlla bàyyi ma ci kanam kanam ne rek mbër taxaw na bis ñaan yi wax li nga xam ne buñ dee dañ la rek naa ay solo mais du ay xaalis bu mu ci dugal wala déet non non lamb dafa nekk suñu nattu ñun suñu nattu la nekk ba tax na faaw ñuy bëree. te comme defe naa wax naa ne ko suma suma suma début damaa leen wax fois su ma yàlla dimbalee bu ma jël roi des ci booy yi du ma ne que maa ngi ñoom ay marché dama leen dee benn damay wàcc ci xale yi pour ubbi làmb ci parce que dafa doy rek. Modou Balla Gaye Bombardier Lac de Guiers Eumeu Sène chaque fois loolu moo waral lii mais du dara. man awuma benn problème presse bi waaye nit yi dañoo bari tuute man damay wax chaque fois lamb nattu la ci man waaye bëgguma wax dëgg yàlla ay bruit yu bari feeñ yu bari li may wax chaque fois te ku ma xam xam ko ci man ba tax na xam lu ñu may gis ci réseaux sociaux yi sax bariwul waaye tamit dafa am li nga xam dafa doxoon ci diggante bi muy xaw ma combien de yi nga xam ne Covid bi daf fi nekkoon xam nga ay sorties yooyu yu bari mënta am xam loolu la daal mais du xam nga maag ñoo maag yéen ñoo bokk liggéey ñun tey bu nit dugg internet tappe ñu yàlla ak yéen yéenay jël xam nga ci wala wala yéenay dem di ay ay ay kàndaga xam nga ba tax na man mënu ma dem sans yéen yéen it mënoo leen dem sans man parce que ñoo bokk liggéey bi ah non lamb la comme ni ñuy wax rek wax dëgg yàlla fi ñu jaar ci lamb defe naa bis motul diis trop suñu kaw puisque yàgguñu lool waaye am nañ fi taxusaan bu nekk suñu taxusaan bu nekk événement la moo tax pour man làmb bi làmb comme làmb yëpp la rek mais ay làmb capital ak ay yooyu doon daal gëmu ko daal combat la daal comme yëpp ñu bëri kaw yàlla moo ko loolu waaye ma ne ñaata ñaata yoon <laughs> la loolu dara mer ngeen bu taxumaa bëree ay jël revanche sax ma bëre dafa nekk ci suma yoon ma war a bëre moom jël ko waaye incha allah loolu it mu defoon ba ba ba ba ba bi incha allah bëgg ba jour ba waa Pikine ci waa Pikine nit reer parce que Pikine am naa fa ay ay supporters gis nga moom laa wax moo tax dañ ne a ah, dugg na waa parcelle xaw ma tere na reer yoon may leen man ñaata yoon laa tere reer ñenn ci waa Pikine parce que su ma bëree Pikine ba pare da ngay foog ne Modou Lo fi dëgg am nañ supporter fépp vraiment di ñaan daal incha allah suñu bis maa moom yàlla ci ñeenti waa biir bu ñu reer incha allah. ku ne xam ne waa des arènes mën na yóbbu mbër xam nga làmb rek li nga wax làmb rek culture la lu ci laxasu bari na waaye nag loo sangu-sangu loo naan naan loo tax tax liggéeyoo boo ñëwee doo doo doo am résultat de pour man ba tax na. ñëpp xam nga ne sport entraînement mooy baax njëkk bi mooy baax njëkk bi mu doon loolu mooy daal ko def kon sëriñ bi defe naa seen doom ci yow ku ne làmb ne entraînement ba taxaw gis nga boo taxawee physiquement moralement côté bépp da ngay taxaw ba tax na mooy base bi waaye làmb la rek duñu bàyyi dara xam nañ làmb yàgg na ci làmb xam nañ lu làmb laaj incha allah loolu làmb laaj rek daañu ko def bu soobee yàlla loolu mooy am. jaajëf gars yi dañoo leen si wax ñu ne temps bi ñu mayoon ci salle bi dafa jeex te ginnaaw bu wuyu ñu naan ñu làmb ne dañoo ëppal ko ñu ko defee salle nag xam naa dañ koy yemale foofu rek. non non vraiment kontaan nañ yàlla yàlla def jàmm Sénégal. amiin wasalaam jërëjëf.